infertilité terme appliqué à un couple pour un après un an de rapports sexuels réguliers non protégés, Didal aussi bien que gour, lolo impliqué wul l'impossibilité de fécondation dans un temps plus long infertilité le ko indi professeur Alain Doy, urologue wax nañu d'abord lan est infertilité à l'école favorisée. favoriser góor régulièrement ñooñu dañuy togg entre un an et demi et deux ans te amuñu doom te jëluñu benn garab pour bañ a am doom lii la ñuy wax infertilité. li ko indi euh, ci góor yi am na infertilité ci góor yi am na infertilité ci jigéen yi lii moo tax léegi su ñuy waxu infertilité dañ koy étudier sur le plan du couple parce que on s'est rendu compte que l'infertilité feebaru couple la. mun na jóge ci góor gi mun na jóge ci jigéen ji mun na ci ñaar yépp hmm? mais li ko gën indi ci góor yi actuellement infection yi infection yo xamné ne danga traité wul wala donc si deful euh, attention mu dem ba indi ay jafé jafé tem indi ba ay cicatrices yo xamné da fay boucher yon yon bi nga xamné spermatozoïde spermatozoïdes dañ koy jël pour génn pour mu nga mëna am dom li top moy euh, yenn malformation bu ñuy wax par exemple cryptorchidie cryptorchidie moy malformation bu bo xamné da fay dal da fay ñëw ci testicule bi testicule bi sont juddoo bo Et testicule bi day wacc day ci biir bi dem ci ci souf amna ñi nga xamni testicule bi fay desti ci biir bi wala fay ci bi diagnostiquer au moins avant l'âge de deux ans parce que suñ ko diagnostiqué wul avant deux ans day am ay lésions euh, histologiques ci biir testicule bi bo xamné testicule bi dotul mun fabriquer euh, spermatozoïde benen bi nga xamni daf koy indi lu bari moy varicocele li ñuy wax varicocele

ak euh, les bi li ont conservateur ak yenen substance yi si euh, si ay conserve par exemple etc. Il y a eu une question ñu ngi koy et set nañu l'université euh, ci université parce que devant nañu au mois de décembre une présentation une étude bo xamné woné na euh, sperme bi nga xamni euh bi moyenne moyenne moyenne moyenne spermogramme moyen manam étude sperme bi qualité bi bi amone il y a 10 ans il y a 20 ans beaucoup ak qualité bi am tay mais loolu ñëpp ko constater. OMS sax daf ko constaté ba euh critères yi nga euh ni fay tax ñuy wax sperme bi dafa normal parce que sperme normal bi ñuy wax normal tey Beaucoup ak sperme bu ñuy wax normal il y a 20 ans bi ci jógee wax nañu yan traitement mo possible pour faire infertilité chez l'homme infertilité dañ koy faj dañ koy faj et moyens yi ñu gën pour faire infertilité donc mun nañ ko faj le plus simplement possible ci go wala ci jigéen si ñu amee feebar ñu faj feebar boobu suñ ko teelee fajee ñu am pro ñu am euh, résultat. enfin enfin des na quand même puisque l'infertilité c'est pas simplement kooku am dom bi muy mais il y a l'adoption mu am dom boo xam ne mun euh, élevé mu nekk euh, ça c'est sur le plan mais infertilité euh, aujourd'hui au cas par cas on a une réponse